ne loolu laa. waaw mais donc dañu fen. non parce que dañ ma wax loolu loo xam ne waxuma ko. parce que dañ man. cay Cheikh Yérim man Cheikh Yérim Seck ma moo may rey quoi moom pour moom lépp moo ko xam quoi moom. gars yi Cheikh Yérim Seck day wax a wax a wax ba fenloo boppam dugal boppam wax fen dindiwaat ko wax dëgg dindi dëgg yi fen wax fen dindi ko teg ay fen. gars yi ñu déglu ci Cheikh Yérim Seck li nga xam ne loolu la wax digganteem ak Maimouna gars yi ñu dem. da ngeen xam ne waa ji nii jaratul sax ñu koy déglu quoi moom léppam ay fen la quoi ma bu fenee ñëpp am nañ droit ne ko yow da ngay fen Cheikh Yérim sek waaw mais loolu laa waaw mais donc dañu fenn. non parce que dañ ma wax lo loo xamné waxuma ko. yërim parce que dañ man ma ni respecter ce tribunal là. c'est notre instance. waaw non non yërim. ce tribunal là ñu ma respecter. non dañ la wara a respecter. mais pourquoi ñu may fenal mën nañu juum mën nañu travestir ses propos. mais ne dis pas ça dañu ma fenal. yërim ce sont c'est une instance ñun ñoko jox suñu bopp. ñun dañu wara a respecter ce tribunal là. mais mais de mauvaise foi. non je ne suis pas de mauvaise foi. xam nga lu non bul wax dañuy fenn. d'abord ce tribunal ne me respecte pas non d'abord ce tribunal ne respecte pas. c'est vrai qu'il y a une modification de vos propos. c'est faux je vous le conseille. parce que moi Parce que même je vais m'énerver. Non, Parce que tu es de mauvaise foi. Tu es de très mauvaise foi. ils ont travesti mes propos. Tu le sais. Deuxièmement, on oh, c'est des c'est des pères. mais je l'ai dit xam nga entre les pères xam nga lan moo raam courtoisie respect mutuel xam nga lan mooy respect mutuel. Cheikh Yérim Seck lan ni moo wax lii ñoom ñëpp am nañ sama téléphone. c'est très simple avant ngay def communiqué danga may woo Cheikh Yérim nee na yaa wax lii ma ni la man lii laa wax lii laa wax lii laa wax mais woowoo ma respecté woo ma. tey suba mais ñii bi Ousmane Sonko nii Adji Sarr dongo gaa daan dangin la go ABC fan lañ nekkoon. bi Ousmane Sonko ni day day daggate Macky Sall comme sa day rey Macky Sall comme Samuel Doe maanaam day ko daggate ko fan lañ nekkoon bu gars yi toogee chaque jour ci média yi di saaga chef religieux yi ci réew mi fan lañ nekkoon mais ñuy xoromu nañ ah. <laughs> non mais Sénégal <laughs> non dañoo sax xorom bref ñii correct respecté wuñ ma dañ ma fenal parce que dañ ma wax loo xam ne waxuma ko. non non c'est la vérité. dañ ma fenal parce que liñ ma wax waxuma ko. dañoo déformer samay propos. dañoo déformer ba pare respecté wuñu ma. yérim ba pare eh, xam nga nit ki aussi boo nekkee moom da koy respecté man. fan la nit mën a taxawee xalaat dof wala dina jàpp ma ba paan tongal ma ba ma xëy suba nañ doy 90% des sénégalais. jaajëf gars yi ginnaaw bi ngeen dégloo sax Yérim Seck ko pare dégg ngeen bu baax a baax lan la waxoon ak tey jii nii lan la wax nee wax jooju noonu ñëpp di wax ñëpp di ko corriger moom nee na loolu mësu ko wax mësul wax ne nañ rey quatre-vingt-dix pour cent ay sénégalais bu ko jaree sax nañ leen rey ñoom ñëpp dix pour cent kese des fi di dund Cheikh Yérim Seck loolu la waxoon mais Cheikh Yérim daal nee loolu yëpp mësu ko wax quoi moom taxaw na xam nga Cheikh Bara Ndiaye am na lu mu fa waxoon Cheikh Bara Ndiaye yal na ko yàlla gaaw génne fi mu nekk noonu Cheikh Bara Ndiaye moo fi waxoon ne Cheikh Yérim Seck bu amee costume bu bees dina génn def plateau fen ay fen yu bees te loolu noonu Cheikh Bara Ndiaye dafa doon mbalak noonu quoi di ko kaani mais boo xoolee ba xool affaire yi dëgg lay nëroon quoi dëgg lay nëroon xam nga Cheikh Yérim raaroon na fi quoi génnatul woon raaroon na fi Cheikh Bara Ndiaye ne léegi ngeen commencé gisati ko ci tale tale ak rajo yi ci plateau yu mag yi muy wax man moom Cheikh Bara Ndiaye moom man daf ma yéem quoi xaw ma day gis quoi ci baatin xaw ma day analyse ci xalaatu boppam lay waxee xaw ma dañ koy nettali moom daal lépp loo xam ne wax na ko day ñëw quoi dañ koy gis te buy wax ci ay analyse kese la koy teg du wax waxi baatin du wax leneen du wax wax nañ ma ci ay analyse kese lay wax te lu mu la wax dañ koy gis Cheikh Bara Ndiaye daal yal na ko yàlla génne foofu noonu ci lu gaaw ki nga xam ne mooy Cheikh Yérim nag Cheikh Yérim gars yi waxuñ ko dëgg quoi gars yi waxuñ ko dëgg Cheikh Yérim mérité wul sax ñu koy dégg micro muy wax ndax koo xam ne intérêt boppam kese lay wax Cheikh Yérim lu mu fi def Cheikh Yérim lan la fi wax wax ju baax boo xam ne buñ ci sikkandikoo dina mën a jural réew mi dara ak niñ ko favoriser nii ci kaw nit ñi ba indi la joxe bo xamne buñ ko defé dinañ ci am dara ban wax bu njëriñ la am la Cheikh Yérim Seck wax Cheikh Yérim dal génn ci tali dali grau di graw garaawlu kese mom la fi di graw grau man ma def li man ma xam li man ma dem fee man non ñi may waxal Cheikh Yérim man dama damay dem bu ne ki dafa dof quoi dafa am feebaru xel te lu muy wax dara amu si bu ko neexee wax léegi benn wax ba mu neex ko mu génne si ba set wecc mu ne mosul wax loolu noonu mais Cheikh Yérim est-ce que nit la jaajëf gars ba ci beneen vidéo man daal waa ji yéem na ma torop abonné leen amee vidéo bi jaajëf